Bonjour chers téléspectateurs de la 7TV et eh bienvenue dans votre émission góorgóorlu comme ni ñu koy defee chaque mercredi ah, dañuy daal di ñëw seeti corps de métier yi nga xam ne ah, voilà ñoom ay liggéeykat lañu ah, tey nag ñoo ngi fii nga xam ne mooy Nord fois alors dañuy daal di seeti métier bi nga xam ne mooy métier boucherie on va aller voir un boucher. donc un ah, monsieur bi nga xam ne moom jaaykatu yàpp la donc euh, yàgg na ci peut-être yàggu ci peut lépp di ngeen ko xam ah, ndax dinañ daal di waxtaan ak mu ndax ah, boo leen xoolee ci milieu bi nga xam ne mooy milieu jaay yàpp dafa daal nekk milieu boo xam ne bari na ay secret lu sénégal yi xamul léegi léegi lay doon ma àndat ki nga xam ne mooy Papi baay Fall mu daal di ma accompagner ma daal di dem ci place sam toog ñu waxtaan yaatal bu baax a baax rek ci li nga xam ne mooy milieu bu muy yëngu voilà merci beaucoup nos chers téléspectateurs de la 7TV comme ni ma ko waxee tantôt nee naa leen tey nag maa ngi fi nga xam ne euh, muy euh, Nor fois daal di seet ci un grand monsieur euh, ki nga xam ne moom nag day daal di góorgóorlu bu baax di jaay rek li nga xam ne mooy yàpp ñu gën ko xam ci Rawane donc Rawane un grand boucher bi nga xam ne fii Nor fois ñu bari xam nañ ko ñu bari day da leen di jaay yàpp mais nag dañ koy daal di nuyu jaajëfal ko ba pare balaa ñu yaatal waxtaan bi Rawane nuyu naa ñu lay ziar naka yi tey mbaa yaa ngi si jàmm. si jàmm bu baax yaa ngi si jàmm. Eh, liggéey bi ça va alhamdulilah ñëpp ngi si jàmm alhamdulilah. donc rawaan ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi la xam ne ñoo ngi lay seetaan parce que du ñàkk tey seen waa kër tey mercredi bii dañuy bàyyi lépp lu jàppoon toog di seetaan góorgóorlu. Mm-hmm. waaw maa ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm xam di remercier samay collègues yi ma nekkal en même temps samay clients nga xamante ni chaque jour seen xel ngi dem si rawaan ñuy fi sore sori xam am na si ñoo xamante ne mënatu ñoo jënd fenn yàpp fu dul sarawaan kon maa leen di sant di leen gërëm képp ku may xalaat saa su ne rek di ñëw si man rek maa ngi lay sant di la gërëm. moo ngi leen di sant di leen gërëm ba tax na Mouhamed xëj na daa bëgg a bokk ci <laughs> reportage bi <laughs> nee naa leen góorgóorlu ñëpp a ci bëgg a participer ah, ba tax na aussi euh, Rawane nekk un grand monsieur buy jaay rek li nga xam ne mooy yàpp ah, bëggoon nañ xam ne depuis combien de temps yaa ngi jaay li nga xam ne. yàgg na nag loo xamante ne ëpp na 15 ans. nekkatuma si gan quoi vraiment waaw yàgg na trop trop trop trop. boobu xale nga woon dara. waaw mais bul xool sama tuutiwaay bi rek nga yaakaar ne 15 ans boobu xale laa. oui waaw yàgg naa si trop. vraiment vraiment yàgg naa si quoi. lan moo la lan moo la poussé nga jaay li nga xam ne mooy yàpp. bon génne école ba ñoo taxawaalu si àll bi rek bon sama ndijaay moomu jàngal métier mi sama roko yaa mu bokkal benn bàyyi moo ma ko jàngal. ñu koy woo Moussa mbay ku ko xamul Yoff ku ne dégg nga ko moo nit moo nit fii ñu baree bari si moom lañ dale baa daal waaw si moom lañ commencé quoi. yow mën nañ comprendre ne euh, avant ngay ñëw di installé wu Nord Foire Yoff Apexi euh, Yoff nga njëkkoon nekk. waaw marché Yoff lañ nekkoon fa lañ commencé ban demee dem ba man suñu métier nag suñu patron bernu ñaanal ñu waaw noonu la demee daal. Mm. alors ñu daal di faral di gis ne yàpp balaa ñu koy jaay dañ koy saytu bu baax a baax donc euh, yàpp gi euh, ñan ñoo koy saytu at fan lañ koy saytoo balaa nga koy jaay. dëgg parce que dafa doon loo xamante ni yàpp moom risque yi si nekk moo bari quoi ba tax na ñun yàpp bi ñu ni utiliser au niveau de serrage lañ koy jëleet te serrage dafa bu dul si si biti ñun suñu yàpp si biir lay jógee te vétérinaire bu xës bu dugg si biir buñ ko abattre. foie vétérinaire saytu ko ba pare mu sóor ga génn quoi ba si foie bi nii jaay ni man du ma jaay foie importé local rek laay jaay ñu bëree bëri xam nañ ko si man moo tax lu ma indi si foie du taxawaalu su yàpp tamit la même chose xam ñu bëree bëri dañuy romb sama yàpp di apprécier ba sànq rek si mujj am na sama benn paa bu fi ñëw xawuma ko mais nee na ma dama gis sama yàpp nu mu mer rek xam mu ñëw jëndul woon sax mais day apprécier chaque jour sama yàpp daal voilà da koy apprécier chaque jour ba léegi rek si mujj yàlla xam na loolu en tout cas loolu de dafa nekk loo xam ne lu ama am solo la parce que l'abattage et euh, li nga xam ne mooy dépistage bi aussi lu ama am solo la yàpp nekk na loo xam ne des fois Euh, ku nekk jël euh, jaay yàpp boo xam ne euh, amaana na sax kenn dépisté wu ko mm. te loolu nag baaxul ci li nga xam ne mooy santé surtout nit ñi nga xam ne dañoo bëgg lekk yàpp il faut ñuy saytu bu baax a baax yàpp bu baax avant ñu koy lekk en tant que yow boucher Rawane en tant que jaaykatu yàpp est-ce que xàmmee nga yàpp bu baax at bu bon at bu baaxul at naka nga koy xàmmee. en ah, mais bien sûr ku si def plus lépp 15 ans kay boo gisee yàpp bu baax ak bu bon di nga ko xàmmee parce que man mii. boo taxawee si man jaakaar ak ma ne di nga xam ne kii bëgg na lu baax parce que bu ma undi yàpp boo xamante ne nii non ku ko gis doo man su laay dox quoi ba dara bëgguma dara loo xamante ne nii lu may camoufler la moo tax bu may dem dama siy dem ba jeex xam nga du ma indi yàpp boo xamante ni ku ko gis da nga amancé ah, yàpp bi nangam nangam non non non man du ma fonctionner noonu quoi vraiment man yàpp bu mu gën a baaxee daan foofu laa koy jëlee quoi. ñun ñi nga xam ne euh, euh, xàmmewuñu yàpp bu baax at bu baaxut mm. euh, tey bu ñu bëggoon xàmmee yàpp bi baax na wala baaxut naka lañ koy xàmmewee parce que des fois ñu gis yàpp bu xonk cur mm. des ñu gis yàpp boo xam ne dafay mel ni lu xaw a am lu verte mm. des fois yàpp bi mel ni lu ñuul naka la ñuy xàmmewee waaw mais xam nga ñu man dama koy wax sax sama boy comme wax dan dan nekk plein air mu indee yàpp bi nii damay jël yàpp bi wàññi ko dugal si frigo bi bàyyi li si def si kaw taabu ji parce que am naa si expérience boo xamante ni du ma bëgg a exposer yàpp yëpp si kaw taabal ji xam nga yàpp bi boo ko indee par exemple teg loo mën a jaay si kaw taabal ji la des nga dugg si frigo bi boo jaayee li si kaw taabal ji ba jeex ba mu jeex liggéey ngay génnaat mooy mooy dàq li nga tegoon si kaw taabal ji parce que mu ngi commencé consommation baa ngi koy jàpp quoi xam nga noonu lay demee quoi moo tax du ma nangu mukk et puis tamit du ma nangu naaj di si tàppe parce que bu si naaj bu tàppee bu yàggee yàpp day ñuul nga naan day fekk yàpp mu bees mais boo xoolee mu ñuul da naan yàpp bi du yàpp bees xam ñuulaay bi yàqu ci dara. non ñuulaay bi yàqu ci dara sax mais naaj bi mooy indi loolu kaa naaj bu si tàppee rek day ñuulal yàpp bi voilà. Hmm. am na ñoo xam ne du ñu jënd yàpp bu ñuul de sama genre yi. xalaat man du ma nangu yàpp bu du ñuul man sama yàpp doo ñëw mukk sama taabul fekk fa yàpp vert wala mu ñuul noonu non. parce que bu ñëwee quand même fekk nañ fi yàpp boo xam ne dafa daal di rafet lool. Euh, donc tout à rek maa ngi koy wax euh, sama caméraman Papi Baye Fall nee naa ko yàpp bu rafet bu bu bu jar bu neex lay daal di jaay euh, donc mi ngi noonu alors on dit souvent que la viande elle est bonne la consommation maanaam ngay consommer li nga xam ne mooy yàpp dafa baax yow léegi loolu lan nga si sa gis. waaw yàpp moom ku ku ma sañoon ku xëy boo toogee ñaar fan ba ñetti fan di nga jënd yàpp nga lekk parce que baax na dafa baax daal waaw dafa baax pour consommer quoi. kon euh, ñi nga xam ne du ñu daal di consommer yàpp bu bëree bëri il faut rek euh, ngeen di consommer li ngeen xam ne mooy yàpp euh, parce que daal dina baax pour la santé donc xam naa ne dinaa fi indiwaat ci dans mes astuces beauté bien-être et tout ce qui concerne la mode samay astuces dina indi aussi li nga xam ne mooy bien-être les bienfaits de la viande indi woon naa ko sax viande rouge ak viande blanche li nga xam ne noonu lay daal di yokkee si si sa santé donc dafa daal di baax ngeen di consommer li nga xam ne mooy yàpp surtout li xam ne mooy la viande blanche rouge euh, dafa daal di gën a tii yow da ngay jaay yàpp bu weex bi mooy poulet volaille yi. ginaar waa si si man damay jaay ganaar désormais man ganaar yi may jaay maa koy maa koy maa yara sama bopp xam nga may wax yow ni léegi nii rek maa ngi naan damay dem sama kër pour xonte ji sama ginaar yooyu yëpp maa koy maa utiliser sama maa koy defara sama bopp ba mu impact ma ko yoree ba mu baax ma abattre ko xam nga dugal sama consommation. Mm. alors ñu gis également que euh, voilà yow am na ay yàpp yu différent yu nekk sa table donc yan yàpp ngay jaay exactement. bon yàpp nag yàpp xar xam yooyu yëpp dañ koy am fois tout ça laxas yeelu xar yeelu nag yëpp dañ koy am. Ah, da ngeen daal di ñëw kon fii nii ngeen xam ne mooy euh, Nord fois Yoff Apexi euh, donc Apexi 2. Apexi 2 voilà ngeen daal di ñëw. voilà route de Madowas bi. du dem a Madawas bi foofu la daal di nekk ngeen daal di jënd foofu yàpp yàpp bu euh, bu baax a baax lay jaay ñu daal di gis ne aussi am na ñuy abat def abatage euh, voilà clandestin euh, donc c'est-à-dire di rey te du jaar si ci dépistage ñii di xarmat donc yow loolu naka nga ko gisee est-ce jënd yàpp bi nga xam ne dañ ko rey ba pare ñëw di non non non non non man man du ma jënd genre boobu noonu du ma jënd genre boobu man sama yàpp chaque jour seeraat lay lay laay ute yàpp ah Seras laay utee yàpp waaw. boobu tamit dafa mel ni wóorut ndax tey buñ ko bu nekkee clandestin la euh, doo xam ndax dafa feebar doo xam lan yan ñoo ci nekk ah, yan mooy risques yi nekk si abattage clandestin yi nga xam ne nit ñi des fois dañ koy def. dafa wóorul dafa wóorul man wóorul tàmm ma sax di clandestin man sama yàpp duma ma clandestin waaw wóorul daal man moom je préfère que dem Seras vétérinaire contrôlé ko moo gën a daal sama xel daal waaw tax du ma clandestin. du ma jënd luñ clandestin waaw. xool sa àqu laay doo xool facilité. mi ngi noonu waaw mi ngi noonu voilà. donc yéen ñi ngeen xam ne aussi ay boucher ngeen il faut ngeen di bàyyi xel loolu parce que am na ñi nga xam ne dañuy xarmat di rey di ñëw di leen jaay peut-être di ñu leen di jaayee c'est moins cher beaucoup plus moins cher mais euh, da ngeen di daal di sooraale carrément que euh, tey ndax euh, rabu àll boobu noonu muy xar bi wala nag bi ndax dépisté nañ ko ndax dépistage dafa am importance ci li nga xam ne mooy ndawal ndax des fois ñu am chopé ay feebar yi nga xam ne peut-être nit ki bu ko lekkee mën na ko wàllaale loolu yëpp c'est important ba tax na tey aussi gis nañ ne yàpp dafa cher lool. loolu dëgg la. trop yàpp kay ba mu seeree du tey ba mu seeree du tey mu ngi bëgg a yàgg quoi mi ngi bëgg a yàgg te man je préfère mu wàññi bu baax a baax ba ñëpp mën si jot waaw. seeraay bi àpp man mën si jot ku nekk gis sa bopp quoi mais moment bii moom yàpp bi ni mu seeree ëpp na. voilà léegi seeraay bi gis nañ ne carrément da leen di euh, day day day métti si yéen métti également ci ñi nga xam ne ñooy Euh, togg parce que tey yàpp bu seeree ñu bari dootuñu lekkati yàpp. bien sûr parce que ba si ñun ñii sax duñu arrangé parce que des fois nga nekk si nekk si nit ñi doo xam duñ xam li ngay dund pour ñoom yaa ngi si am lu dul jeex te li ngi siy dundee xam xam tey day neex bu subaa mu naqari mais dañuy toog ñu muñ ko parce que ñoo ko opté quoi waaw day métti trop mais dañuy toog ñu muñ xam ne mos a métti lu ne dina mos a neex quoi voilà. Hmm. alors kilo yàpp liibaru yàpp genn wàll liibar yooyu yëpp ñaat la ñuy jël. waaw ça dépend man man maa ngi jaay fi mu nekk nii kilo yàpp à 4000 francs demi kilo bi mi ngi jël 2000 francs gën maa libre 1000 francs man loolu laay jaay yàpp pour les sànni quoi. Mm-hmm. donc nag il faut euh, ñiy cheral ndawal gi il faut ñu wàññi ko parce que am na ñuy dépense mille francs donc euh, day daal di lool ci li nga xam ne euh, mooy borom kër yi alors ñu daal di ñëwaat ci beneen question boo xam ne dañu faral di ko dégg ci rek ñi nga xam ne mooy les bouchers dañu manqué d'honnêteté maanaam dañoo desee jub daal. ndax maanaam li ñuy euh, euh, li ñuy peser des fois du mu manqué mais dañ koy jaayaale noonu nan nga gisee phénomène boobu. waaw man moom du genre boobu bañ naa ko sax bon bu ma peeselee nit parce que ay nit rek lañ quoi des fois nga peesee nit di ko defar am benn morceau bi des mu leer na la yow morceau bi moomuloo ko am na si ñoo xam ne samay client la ñu ngi may seetaan bon ñoom xam dinañ xam nañ ko si man moom xam nañ ko si man quoi am na sama benn client bi la fois passé rek. dama koy wër di koy wër dafa ko jaay ba pare ma gis morceau bi des ma lii de diw laa mujjee jaay léegi nii di ko xool ba gis ko ma nekk si benn boutique ma ma oo ko mu ñëw ma ne lii de yaa ko moom daal di koy dugal si mbuusam man moom xalaatuma jaay lu ma te au contraire peut-être dinaa la jaay ba dagg loo xamante ni sax moom ma ko jox la nga dem mais du ma jaay mukk lu ma tam soo ma fukki xel xalaatu ko te loolu laay tàggate tamit sama xale yi ma nekkal nii waaw. c'est hmm. important parce que loolu aussi riba la jaay lu manqué d'habitude dañ koy wax est-ce que riba boobu tey euh, moo tax yow ngay bañ a jaay lu matut hmm. wala da nga ko bëgg rek opté ko di ko def non non non man moom lu jaay lu matul moom di sama affaire quoi vraiment dama ko ñëma ñëw sax nag man moom ñiy jël di jaay lu matul xama loolu moom ñoom ñoo ma ëpp fit quoi man moom damay jaay moom damay damay jaay sama diggante ak sama borom parce que li may jaay balance yi clients yi man maa féetee ak balance yi ñoom ñoom mais encaissé xaalis nit ko pare jox ko lumatul matul loolu àq bu rëy la loolu moom aussi du sama sax jukko moom voilà alors Rawane ñu daal di gis ne euh, boucherie dafa daal di nekk métier boo xam ne c'est pas du tout facile euh, donc euh, moom en yow en tant que boucher dafay daal di am risques yi ngeen xam ne da ngeen koy daal di gàllankoor ak métier bi maanaam yan risque moo ci mën a am. waaw bëri na risque moom parce que des fois yi da ngay kii ndeysaan ñu ngi lay ñeemante ak sa loxo yeeg paaka yi mais boo ko xasee ba maîtriser rek. jeex na quoi mais ku si def plus de lu ëpp 15 ans war ngaa mën a maîtriser quoi xam nga des fois clients yi ñu bëree bëri xañ ni ni may def sax da leen di jaaxal ak paaka yeeg tout ça te yëpp si risque yi la bokk quoi mais comment que ñun yàgg nañ si te fu dëgg yàlla man boog gisatuma lu may jaaxal si lu jëm si milieu de yàpp parce que yàgg naa si trop ñam naa si lu neex ñam naa si lu naqari. lu naqari nga ci ñam. mais dafa bëri ay risques. des fois si perte pertement bi miti miti xam des fois gaañu du mën a ñàkk nga gaañu si ba muy mujjee gaañu rek may maa gaañu fii gaañu mitee miti dem yóbbu sama bopp hôpital ñu ñaw ko mais loolu moog liggéey bi ñoo ànd quoi voilà loolu moog liggéey bi ñoo ànd loolu moom amul problème moom amul problème. c'est-à-dire nga dagg fii. voilà c'est que nag li liggéey bi dafa métti de parce que euh, papi nga jël jaasi quand même di gor ay lii man dama koy ragal boom ñoom bu ñu may jaay damay dem taxawee nële ba des fois dañ ma naan di jënd ba pare di tàppet loolu dafa daal di doy waar lool. Euh, donc aussi euh, yéen yéen a ngi dund li nga xam ne mooy difficulté ci métier bi donc yan mooy difficulté aussi ngeen xam ne da ngeen koy jàllankoor si seen biir si si bi waaw mooy mooy yàpp bu seer bi rek. xam nga lu yàpp moom bu gënoon a mën a wàññi ko ñun dinañu arranger quoi ñun consommation bi ñu koy utiliser quoi. ñun mitiñe si ki koy jënd. parce que am na ñoo xam mën mënuñoo koo ñàkk ba ñu jënd am na ñoo xam te bëgg nañ ko jënd seen loxo jotul seen digg ginnaaw wala buñ ko jëndee tamit lan mën si satisfait du leen amee beneen njëriñ du leen mën a satisfait carrément quoi ma sañoon nag mu wàññi ko ba ñëpp mën si jot voilà. en tout cas kon euh, wàññi leen yàpp bi parce que métti na si ñun ñi koy jënd mais aussi métti na si ñoom ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo koy jaay euh, tey métier bi nag ñi si dugg bari nañ lool donc et puis nekk na métier bu faselut donc lan ngeen di yaakaar ne boo leen ko defoon tey mooy gën a améliorer li ngeen xam ne mooy seen métier. waaw liggéey moom buñ sañoon ñun ñi buñ sañoon mu gën a yaatu suñ suñ ñun quoi mu gën a yaatu maanaam pour suñu magasin des fois ñu ngi jigganti magasin mënaguñ ko am. ñu ngi ñu ngi nekk en plein air non presque ban waa mairie jaare fi dajje suñu magasin presque mu ngi bëgg a yàgg mu léegi ñu dugg suñuy un an et demi. yii du woon table magasin la woon waa mairie ñoo ko fi jaar dajj ko xam nga boobu ba ñu ngi war alentour bi pour magasin mënuñu mënuñu ko am te buñ sañoon tey jii booy ñëw duñu def interview da nga ñu fekk suñu biir magasin xam nga te la ñuy ñaan yàlla boobu ba ñu ngi siy dox nag sotteegul ko mais nag. yàlla baax na quoi ndànk-ndànk rek wax ñu boo gis si benn lay commencé te ñaan nañu yàlla boo fi ñëwaat incha nga fekk ñu sunu magasin quoi. te lay demee sax nag yàggatul dara léegi léegi rek dañ lay daal fekk ci euh, euh, say magasin yu bëree bëri donc moom raawaan euh, du nekk fi moom kese bien vrai que moom c'est lui le boss mais dañuy daal di wiiri papi dem xool xale yi nga xam ne moom lay liggéeyandoo parce que ay xale yu am yar lañ tamit donc xale yi nangu liggéey lañ bu ko defee ñu nit ñu la ñuy liggéeyee mais aussi métier bi naka lañ ko gisee papi bu baaxee rek danga may daal di accompagner ndànk ma wiiri en rawaan daal di dem xool euh, ñi nga xam ne voilà ñii di haché e. naa leen moom kese nekk ko fi ay client wam ñoo fi nekk mais aussi euh, ñi nga xam ne ñoom lay yàlla ci ginnaaw daal di xool ki nga xam ne moom mooy euh, dagg également li nga xam ne mooy yàpp bi ma madame jàlleel ne derrière voilà kii aussi dafay daal di dagg soble donc la ñuy njëkkee ci moom sëñ bi nuy naa la. maa yaa ngi si jàmm. sant bu bi nan la. Ibrahima Ibrahima Diallo. Diagne Ibrahima Diagne jaañ Naar alors Ibrahima yow gis nañ ne jaayoo yàpp soble ngay dagg. waaw waaw loolu mooy sama métier. Mhm. kon fii ku nekk dafa am looy def. waaw loolu wér na. dagg soble yomb na est-ce que. non yombul da ah. mhm. jigéen yëpp dañu bàyyi li nga xam ne mooy euh, daggal seen bopp soble di ñëw nga leen di ngeen di leen di daggal soble lu tax loolu lu waral loolu. waaw xam naa ak jamono ji fi mu toll léegi. Mm. Euh, dagg soble doon na loo xam ne lu métti la. metti la. dagg dégg naa day xeeñal loxo. waaw day xeeñal loxo jooy. waaw boo boo yoree borom kër nag am na ñoo xam duñ ko bëgg. duñ ko dañuy pare seen loxo yi di xeeñ. waaw ñu tëdd seen borom kër ñu naan ma dama raxasu yooyu. Ah. waaw day nit ki daggi soble laa leen wax ah xale jigéen ñi bëgg ngeen facilité lu tax ngeen bëgg ñu leen di daggal soble ba tax na dañuy ñëwaat ci yàpp bi fekkaat nañ fi beneen euh, beneen monsieur bi nga xam ne moom dafa nekk di haché papi jëlal ma yàpp bi nu mu koy haché rek léegi ñun namatuñu yàpp yi nga xam ne dañ koy acheter Europe indi ko senegal ñoom mën nañ lépp sëñ bi noo tudd. waaw maa ngi lay ziar. dool di ziar. yaa si jàmm. alhamdulilah. maa ngi tudd Ma Abdou. Ma Abdou Ma Abdou acheter yombul waaw yombul yombul waaw. te bëri na ay risque waaw risque la moom parce que yenn saa nga laal loxo mais da nga koy muñ da nga koy gérer quoi. Ma Abdou yow da nga yaru. waaw noonu yàlla bind. yaru nga de. waaw macha allah ma Abdou la. <laughs> noonu alors ma Abdou achat bi est-ce que dafay jël temps wala jëlul temps. waaw day jël temps parce que yenn saa yenn saa nag ñu am ñu yaakamti nag mais dañ koy gérer dañ koy gérer waaw mais sur commande lañ koy def sur commande waaw. alors euh, est-ce que ça vous arrive des fois nga acheter nit ki ba pare mu ne la carrément li nga acheter dafa dijj wala genre. waaw parce que su fekkee dafa ñëw buñ ko defaree ba pare yenn saa dañuy toloore quoi xam nga clientèle jaay mu dafa metti quoi dafa metti trop sax mais faaw ñu jéem a gérer comme que ñun yàlla daf ñu yar jigéen ñu nekk ay borom waa dañuy dañuy sant quoi mais euh, yenn saa ñu ñëw ñu ñu ni li ñu defar baaxul wala dafa ndaw xam nga mais après dañ si dañ siy lii rek dañ si defaraat defaraat ko ba baax. waaw pour jàppale pour jàppale leen quoi. yow acheter rek ngay defal da ngay dagg yàpp di jaayaare di dagg di jaay foie wala lépp danga koy def. waaw parce que man sama euh, rawaan bu fi nekkul man maay gérer maay gérer quoi mais avant avant avant may taxaw fii nii suba teel maay maay trancé la maay trancé yàpp bi waaw ba li si li si xaw a am faay rek mu ne ma lii ak léeg-léeg ma waaw ma ko waaw. Rawaan sama frère bu baax la nag waaw daf ma waaw bu baax a baax waaw yàlla dama ñaanal yàlla jàppale ko dafa jàmm si ay njabootam soxnaam ñoom ñëpp bu baax waaw dama kay ñaanal yàlla quoi fi ma féetee dëgg yàlla frère bi ma bokkal bàpp sax waaw ndey ak sax ak sœur yi fi ma taxawee wax dëgg yàlla moom alhamdulilah. liggéeyat moom yomb na. waaw yomb na amul benn problème. waaw man. guddi di yuuxu noonu di doxee ay coups. non non moom mosuma mosuma lii quoi. moom daa bëri kersa waaw gis nga fii moom fii moom euh, place bi moom place daara la. place daara wax dëgg yàlla parce que dama jógee Thiawane ñoo fekk si ko waaw mu jëlam fu waaw ma koy ñaanal daal wax dëgg yàlla parce que frère bu baax la comme ku ma bokkal ndey ak baay daf ma rakam même famille tout waaw di leen ñaanal bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla amul benn problème fii nii. sama yaay si biir dama koy amul benn problème wax dëgg yàlla dama koy ñaanal yàlla yàlla defal ko li mu bëgg si man waaw ma li ma yéene ci moom daal yàlla na ko yàlla defal. amin amin ah loolu daw na yaxam kon raawaan moom ah, nit ku baax la. Ah, parce que tout à l'heure maa ngi gis benn ah, daam bu jënd ba pare xam naa dafa yàkkamti nee na ma kii ku baax la bu ma doon wax fii ba suba du jeex mais damaa yàkkamti ma dama ne ko amul benn problème l'essentiel dégg ngeen rek ki ngeen xam ne aussi mooy frère bi nga xam ne moom la nekkal fii di liggéey donc moom it moo ngi wax baaxaayam kenn du moom donc raawaan xam naa ne waa APEXI yo fii xam nañ ko bu baax donc di ko jaajëfal bu baax baax donc Rawane euh, bu nekkee c'est bon rek da ngay daal di ñëw fii ñu daal di tàggatoo ak yow donc euh, daal di la jàppale également ci jaay bi parce que moom it euh, voilà jàmbaar la daal donc Rawane c'est toujours un plaisir le fait que ñu ñëw ba fii defal yow émission donc kontaan nañ ci lool. waaw maa la gën a kontaan kay naa fu dëggal maa ngi lay sant di la gërëm xam di yokk ñaanal yàlla seen site bi suñu borom. gën kaa yaatu. yaa ngi ñuy lii tu yaa ñuy tooñ de ñun télé lañ yor yoruñu si. waaw maa ngi jégalu quoi télé bi dama dama juum. dama lay tooñ waaw voilà suñu yokk ko ba ngeen yëg ko voilà Moussa Wane Bawane jërëjëf quoi. di la remercier bu baax a baax kay naa di la remercier également pour disponibilité bi ndax nee moom da tout dafa amoon fu muy dem mais ñun la doom xaar amuñu sa fay raawaan c'est pas la première fois ngay génn ci cette TV def naa ça ne fait pas mu wax ci doléance am citoyen la ah, bokk na ci réew mi te mu ngi liggéey réew mi nee naa leen yéen ñi ngeen xam ne da ngeen di mbëkk gaal bi euh, mbëkk di dem réewu jàmbur di liggéey mu ngeen liggéey fii nii te bu ko defee rek yàlla leen di suturaal di la jaajëfal di la la gërëm ah kontaan naa ah. merci beaucoup beaucoup merci également aux téléspectateurs di leen jaajëfal bu baax a baax mais aussi euh, góorgóorlu nii lay demee saa su ne chaque mercredi rek dinañ daal di ñëw ak benn corps de métier bi ngeen xam ne euh, bu ñu ñëwee dinañ leen woon nan laa naka la li ñuy liggéey euh, liggéey bi nag nekk na liggéey bu compliqué bu difficile bu méttee méttee méttee méttee bu am xaalis mu amul xaalis <laughs> raawaan reenaan reetaan na euh, mi ngi noonu di jaajëfal également sama caméraman euh, di Papi baay Fall tey moom laa àndal euh, moom moo daal di accompagner lu di di jaajëfal également père le chauffeur maa ngi koy daal di jaajëfal mais sans pour autant oublier sama doom Gora donc nee naa leen vidéo bi bu naay see rek moom moo ci jaar parce que moom mooy monteur bi le monteur de tous les temps Gora je te fais un gros gros coucou mais di leen jaajëfal sama fans yi nga xam ne dañuy seetaan góorgóorlu di ma woo de partout de partout euh, di leen wax merci beaucoup kontaan naa maa ngi gis appel yi maa ngi gis euh, encouragement yi maa ngi gis ni ngeen di euh, bégewee également ñi may invité di leen jaajëfal yéen ñëpp bàyyiwuma kenn numéro góorgóorlu nag pour ñi nga xam ne bëgg nañ ma defaral leen émission c'est très simple mën ngeen ñu contacter sur le 78 480 25 25 78 480 25 25 di leen jaajëfal yéen ñëpp ñëpp love you allez